na bëgg-bëggam moo di góolu ca équipe nationale bu France kon bëgg-bëgg bi waa Côte d'Ivoire amoon sottiwul ndax gone gi dafa gantal nee na li mu bëgg moo di góolu ca équipe nationale bu France kon nag teg nañu ay mbiram ñu jógee ci équipe nationale bu Côte d'Ivoire ak seenuk lajji jël doomu Algérie bi ak France tudd Yacine Adli moom it mën nañu ko wax doomu France ndax doomu Algérie bi ak France tànn na équipe nationale bu France nee na foofee la bëgg a football nee na moom bëggul génn au niveau bi dafa bëgg des ci au niveau bi mu jàpp nag moo di footballu France moo gën a kawe footballu Algérie nee na bëgg-bëgg bi mu am moo di football ca équipe nationale bu France loolee nag démb la ko xamle bi muy amal conférence de presse clubam di AC Milan tey ji dañuy jàkkaarloo ak Slavia Praga doomu Algérie bi ak France démb yëkkati kàddu yooyu xam le ni bëgg-bëgg moo di football ca équipe nationale bu France mu Yacine Adli ñuy jugee ci Yacine Adli ak i bëgg dem ca waa Manchester City ñoom nag seen gone gii tudd Matheus Nunes dafa am blessure bu miti lool clubam di mën Manchester City démb Copenhague lañ doon jàkkaar lool waaye match boobee doomu Portugal bi blessure bu mitti la ci jëlee ci baaraamu loxo bi ci la am damm-damm bu mitti lool yéen a ngi di ko gis blessure am boobee nag mitti na lool muy matti Matheus Nunes kon nañu ko ñaanal balaa yàgg mu wér duggaat ci terrain yi di doxal ñu jugee ci Matheus Nunes waaye clubam di mën Manchester City duñu ko génn gum dañuy jël capacoli nores bii di Haaland démb bi ñuy jàkkaarloo ak Copenhague dugal na ab bit ca match boobee match bi 3-1 la jeexee moom Haaland nag dab na Agüero ci ay bit yi mu dugal mu soxal Ligue des champions kun Agüero li mu dugal ci ay bit ci Ligue des champions mi ngi toll ci 41 maanaam ñeent fukk ak benn ci ay bit la dugal Haaland jot na ko démb Haaland li mu jongante ci ay match ci Ligue des champions mi ngi toll ci 37 dugal na ca 41 bit démb la amal jaloore joojee moom doomu Norvège bi ñu jugee ci Haaland ak ci jalooreem dem ca waa Chelsea ñoom nag altine di lëndi incha allah Newcastle la ñu war a dalal match boobee nag Premier League la soxal waaye kat Chelsea am nañu ca ay absent absent yooye ñett lañu ñaar ñi nag dañoo am blessure ñaar ñi am blessure moo di Ben Chilwell ak Colwyn ñoom ñaar dañoo am blessure bu dee Gallagher moom dafa xaw a tawat maanaam dafa sibiru moo tax du mën a bokk ca match boobee kon ñett ñoo ñee ma lim altine bu Chelsea di dalal Newcastle duñu mën a bokk ca match boobee ñu jugee ci waa Chelsea ak seenub xabaar bu naqari jël doomu Portugal bi tudd Joao Cancelo moom nag bu ñu sukkandikoo ci esport Manchester City bi ko moom bëggatuñu mu sol seenub mayo di football li ñu bëgg moo di teqaliko ak moom saison bii ñu dëgmal nag club bu njëkk a songo ay mbiram ëpp xaalis boo fay rek noppi nañu ngir jaay la ko waaye bu ñu demee ba di ko li ñu bëgg ci moom gàtt-gàtt dina mat quarante millions d'euros nee nañu loolee ku ko def ci doomu Portugal bii di João Cancelo noppi nañu ngir jaay la ko ndax jamono ji waa Manchester City dañoo doyal sëkk ci ay mbiram bëggatuñu ko gis mu sol mën Manchester City di football xibaar boobu esport moo ko xamle ñu jugee ci João Cancelo ak bëgg-bëgg boobe boobee mën Manchester City am ci moom waaye club bi muy football jamono ji duñ leen bàyyee gum muy Barcelone Barcelone googee suba ci aj ajjuma ji incha allah dañuy jàkkaarloo ak Mallorca match boobee nag ligala la soxal waaye Barcelone match boobee bëri na ca ay absent lool ñii dañu leen aj ñii dañoo am blessure liste bi nag gudd na lool ci ñi am blessure lay njëkk ndax seen gone gii di Gavi moom blessé woon na bu yàgg du bokk ca match boobee Ferran Torres dafa am blessure Alejandro Balde Frenkie de Jong ba ca Pedri ñooñee ñépp dañoo am blessure bu dee Ronald Araujo moom dañ ko suspendre maanaam dañu ko aj du mën a bokk ca match boobee ba ci Xavi mi leen di tàggat moom it match boobee du mën a toog ci banc bi ngir tàggat leen ca kaw tribune ba lay nekk suba nag dañuy jàkkaarloo ak Mallorca waaye ñooñee ñépp ma lim du ñu mën a bokk ca match boobee ne rawatina Xavi mi di tàggat moom du mën a toog ci bang bi ñu jugee ci waa Barcelone ak seeni absent jël doomu Angleterre bii di Jude bellingam moom nag coow doxoon na ci digganteem ak beneen doomu Angleterre di Greenwood keroog bi Xetafe di jàkkaarloo ak Real de Madrid ndax dañoo wax ne moom mii di Jude Bellingham dafa waxoon Greenwood na ko violeur nga ngeen baal ma ci kàddu gi violeur nag bu ñu koy tekki mooy séq ak jigéen ci lu ko neexut bi loolee amee nag ñi ëmb footballub Espagne dañu ca ubbi woon ab lanket di topp mbir moomee moom Greenwood mu ñaanoon leen ne leen dama bëgg ngeen teg mbir mi ci suuf ndax kat coow loolee yóbbu wut ma fenn te loolee gën a lu ma ci jamono joojee nag mbir mi dafa tagga témbe woon demul woon céng dikkul woon mbay laar jamono ji nag marka nee na enquête boobee ñi ko yoroon teg nañu ko ci suuf jamono ji toppee wootuñu dara Jude ngam ci digganteem ak Mason Greenwood loole la Marca yéene kay xamle maanaam mbir mi teg nañu ko ci suuf coow li jeex na tàkk ñi jógee ci Jude Bellingham waaye këlëbam di Real de Madrid ñu leen bàyyee gum ñoom nag ñi ëmb footballub Espagne ubbi nañu ab lanket ci ñoom rawatina ci seenub télévision ñu naan ko Real de Madrid TV ndax tele boobeekat dañuy jël arbitre yi di fa wane seeni njuumte te nit ku dul juum nag amul njuumte yooyee ñuy waneel arbit yi naqari na lool ñi ëmb footballu Espagne nee nañu loolee du dëgg du yoon